waaw d' abord di la remercier ci loolu di la remercier ci loolu ba ngay wax léegi père ba ngay naan da ngaa jiw ko dee kii ma woo ko de ku yàgg sa la macha allah waaye di wax bëri moom tey bu nekk ah, ci làmb te chaque jour nga bëri bëri indi mu di droite wala noonu am na li nga xam ne du duñu gan ci làmb daal xam duñu gan ci làmb waaw bëri nañ ci ku nekk ñam nañ ci ku kon ay Ama Baldé yooyu yooyu doomu ne daal ay deux gauche ak droite dinañ ci jaaxal te mu ngi wax yàgg nañoo tëbul ne déedéet man mosuma tëb Ama Baldé moom moo ko yàgg tëb depuis combat bi amoon wuur mu ñëw di ko tëb xam nga loolu yàgg na lool waaye nag jot na ko wut lu yàgg mu jaral ko lu nekk incha allah loolu mu doon def kon nit bis ba na fexe ba incha allah loolu mu doon def na ko dëggal loolu rek laay ñaan bu soobee yàlla. wa salaam bu ko defee nag. bu ko defee. ah da def rek d'abord loolu rek la ñuy ñaan loolu rek la ñuy ñaan. mais mooy am li nga wax nii li ngeen wax nii pour taxawal taxawal. ah ñëw de. day ah, waaye fas muy maamu de laaw seen bi sañ koy laawee. kuy ñi ñiy bay wala wala ñi yor wala yi war nañ ko xam. fas koy laawee. du